أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ginnaaw bi nu sant yàlla jul ci yonte bi alayhi wa sallam di ziyaare mbolém kilifa diina ji Thiès Média moo ñëw tey jii ci waajtaayu gàmmu Njaasaan waajtaayu gàmmu Njaasaan ñu ñëw fii nag ci kenn ci kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii si Njaasaan waaye bala ñoo door ñu nuyu ki nga xam ne mooy xalifa général ahlu kuntiyu di Cheikh Bekaay al di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér di ñaanal mbooleem ay rakkam mbooleem njaboot gi yëpp mbooleem ahlu kuntiyu yëpp waaye di ziar nag tey ñaanal ki nga xam ne moom leen fekk si fii ci daara ji di sunu sëriñ di sunu xarit sëriñ xalifa kunta sëriñ xalifa kunta fii ñu nekk mooy jàkka ji ak daara ji nga xam ne mooy daara nuurul huda daara ji di daara joo xam ne dañ fiy yar ndaw ñi di leen jàngal alquranul karim waaye di def si ñoom ab yar su ko defee incha allah ci wàccaayu gàmmu njaasaan gi di leen fas yéene séq ki nga xam ne mooy sëriñ bi di sëriñ xalifa kunta ci li nga xam ne mooy programme bi nga xam ne moom la fa yéene def ci gàmm gi nga xam ne gàmm gi ku ko xam ku ne xam ne suñu xalifakat dina fi organiser gàmm gu am solo boo xam ne dina ko ànd ak mbokki jullit yi di ko ànd ak ay wëllëreem di ko ànd ay taalibeem fu nekk la nit di jógee ci biir réew mi ak ci bitim réew waaye duñ sori ci kàddu xam naa ci kanam tuuti rek dinañ fas yéene séq jotaay bi ki nga xam ne mooy Serigne xalifa Kunta mu dikkee ñun ci waajtaayu gàmmu Njaasaan gi ak na ko fas yéene waajale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 ngeen fa yéene ànd ak Thiès Média ci waajtaayu gàmmu Ndiassane 2022 ñu fa yéene ànd ak ki xam ne sunu sëriñ la di sunu wëllëre di sunu xarit sëriñ xalifa Kunta waaye la ko jiitu ñoo ngi nuyu bu baax mbooleem ëhlu kunti yu yëpp di ci jiital ki nga xam ne mooy xalifa bi sëriñ Cheikh Bekaay Albekaay ak mbooleem njabootam yëpp xam naa du ñu sore ci kàddu gi bu ñu joxee sëriñ bi kàddu gi rek lépp lu ci wàll ci wàll nuyoo beeg matale gi sëriñ bi dina ko matale. boo leen gisee nag cees Média ñëw fi tey jii li ko waral mooy waajtaayu gàmmu Ndiassane waaye tamit ñu fekk sëriñ bi ci liggéey bu am solo nga xam ne mooy liggéey lislaam nga xam ne mooy jàngale alxuraan waaye tamit ñu fekk ko ci jumaa ji nga xam ne taxawal na ko. te lépp di liggéeyub lislaam ginnaaw loolu bala ñoo sori ci kàddu gi rek dañuy jox sëriñ bi mu nuyoog mbokk yi nga xam ne ñoo nuy seetaan fii ci cees Média ci wàccaayu gàmmu Ndiassane 2022 kon sëñ Xalifa ginnaaw bi ñu la nuyoo te di la ndokkeel ci gàmmu gi dañ lay bàyyi rek nga nuyoog mbokk yi xam ne ñoo nuy bàyyi xel fii ci Thiès Média <coughs> aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم أه، ني نوي مبوك جوليت ييب تي ويرو تيد وي أه، دي زيار بروم كيرغي نخ أه، القران موي حجه الاولى ت اب جوليت ليب لوي ديف نانكو تنك سي شريعه القران موي شريعه سن برب سبحانه وتعالى أننا ما فرضنا في الكتاب من شيء أه، ديالو دادني يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر أن تأتوا البيوت من أبوابها أن تأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون مهم لين شي جبل رك موي بو نيوي سي كير نغا جار سي بونتو با تا نغو نويو بروم كيرغا تا بروم كيرغي تاي موي شيخ البكاي ولد الشيخ البكاي ولد الشيخ أبو محمد كنت ولد الشيخ أبو نعمة أيده الله ونصره وأطال الله بقاه ndax moom moo toogee jotaayu mag ñi moo jote toogee jotaayu bàyyi moo moomum këram te olof Njaay dafa ni waxtaan na neex borom kër te ñun mënuñoo doon leneen lu dul ay taalibe ndax moom la ñu mës a doon te moom la ñuy ñaan yàlla doon ba faw ñu ñaan yàlla dundal ñu ci toppee rey ñu ci taalibe soxlawuñu leneen bëgguñu leneen gëstuwuñu leneen si sunu jëmm yi lu dul ridallah te loolu mënuñu ko am lu dul ci taalibe kon moom mooy sunu kilifa te mate ko sëkk yàlla na ko yàlla may gën a may fan wu gudd ba naal yi mun naa la lislaam yàlla na ko yàlla mottali ci kanamam ndax ku wutu rasulullahi sallallahu alayhi bi lafzin wa bi maana sa dund du yomb te looloo ko dal ndax doon deret rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mën naa ne waaye taxawaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nag lañ gën a soxla te ñaar yëpp yàlla jox na ko muy sëtu rasulullahi ba pare yor taxawaayu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak mboolem jullit nag ñi ngi leen di ziyaar yéen waa Thiès Média ndax uuful ahda innal ahda kaana masulan surtout yow Abdou Karim ndax wóllëre nga wu yàgg te wax dëgg yàlla kóllëre gi saa su nekk yaa ngi koy doxal yaakaar naa ni bi ngay tàbbi ci sunu daara ji boobu lii lépp amut te li lépp itam xewut ndax su ma juumut jamono jooju la télé bii di Thiès Média di doo ko taxaw saa su nekk nag ñu koy ànd séntuwoo ci dara lu dul ngërëmal sunu borom bi subhaana wa taala ndax japp nga ni guddi rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam waccal gi julit bu ne am nga ci taxaway yalla xiir la ci media sa taxaway di meja, nga di rafetal trop kon rek ok ñu la koy nangul te ñi ngi lay ñaan itam nga jéggal ñu itam si géej a déggante beeg géej bi xeyna li ci matul ci ñun la waye loolu ñu koy jéggalu di ñaan es meja, fu télé di yegg rek yalla nako fa suñu borom bi yeggali وما ذلك على الله بعزيز ده يالا موم على كل شيء قدير نيت نك بوي دوغو كوماسي دارا تا گم كو جابال ني فاغا جيم داغ فا ييغ نخ لو كان همت المرء تحت العرش لنالها او همت المرء تحت الثريا لنالها كون اوبجيكتيف دوم ادمه فمو فمو فمو ييغ رك نكو ييتيم ماتي رك بوكو ييتيم ماتي رك ان شاء الله دانا فا ييغ دانا فا ييغ kon Thiès euh, Média ñu ngi leen di euh, sant bu baax ci taxawaay bi nga xam ne yéen a ko am ci diine ndax euh, tey jii bari na ku gindandiku ci média la gindandikoo waaye bari na ku réer ci média la réere kon ñaar yëpp am na ci waaye nag ñi ngi ñaan yàlla yàlla nañ bokk ci ñiy gindee ci média ñun ak yéen yàlla bu ñu bokk mukk ci ñiy réere la ci média li ngeen taxa ñëw nag muy wàccaalu gàmmu gi gamu amul secret ndax gudd rasulullah sallallahu alayhi wasallam te sunu borom subhanahu wa taala moo ne ko inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila allah kon ki nga xamanteni sunu borom bi yoni nako mu gën euh bu bisam de jot julit bu nek bis bu nek yaangi dund sunna ndax sunna du taxaw mukk ci dunduk doom adama tay dang koy dund suba do ko dund dedet muy gam ak muy lu gamu waaye nag kenn ku ne am nga lu lu sori ci yow loo xam ne bi su nekk ngeen gisante ngeen bokk benn kër gi waaye jour anniversaire am bu jotee boo ko rombee ci couloiru kër gi daani ko joyeux ah, anniversaire xolam dana sedd rawatinaa nga jël cadeau jox ko ko waa ani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ci ñun kon ñu naan gàmmu bi daala xëy na euh, seen jàng moo soriwut te itam wala seen gis-gis ci gàmmu ak nañ koy defee xëy na moo gàtt waaye ñun de nañ koy waajalee euh, mooy taazimuhu bi sunnatin waaw taazimuhu bi sunnatin euh, te lépp loo xamante si ni sunna euh, nangu na ko ci lañ ne lépp loo xamante si ni lislaam nangu na ko ci noonu lañ koy waajalee ba ca bis ba ci noonu lañ koy dundee jërëjëf sëriñ Khalifa Kunta ci nuyoo yu am solo yi nga xam ne moom nga ubbee sunu jotaay bi waaye di dellu tamit di la ci ndokkale bu baax a baax di ci ndokkale mbooleem ahlu kunti yi yëpp di la delloo cant geeg euh, ngërëm ni nag ndax xam na ni sunu kóllëre gu yàgg la li nga wax tamit Thiès Media fu mu mënti àgg tamit say ñaan jugu ci ndax xam na ni ba ñuy doogoo sosu lan fësanteeg yow kóllëre waaye kóllëre googu matale googu sëriñ bi di nga ñu nemmeeku di nga ñu ñaanal te xam na ni say ñaan moom bokk na ci li nga xam ni moo nu dëgëral kon ñu ngi lay ndokkale baax ci bis bi ginnaaw loolu sëriñ bi comme ni nga ko waxee rek tanzimuhu bi sunnati lan mooy njëlbeenu li nga mën a leeral ci maam cosaanu gàmmu Njaasaan euh, cosaanu gàmmu Njaasaan sunna la soo xamante si ni maam yee ko sunnaaloon ndax euh, ahlul kunti dañ di paaka ñaari boor ci sallallahu alayhi wa dañu bokk ak moom mu wàññeeku jur leen bokk nañu ak moom ci côté baay wàññeeku mu jur leen ci côté meen ba tax na comme ñoo ngénte woon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka ko ngénte woon di cheybat alhamdi di abdul muttalib tuddee ko seydina muhammad sunna soo suñu di ko roy ba suñ joon yàlla tey ndax boo demee ci jamaacu bawaadi ahlil kunti yi nekk ci aalam bi ndax kunta sénégal mooy minorité ci ahlil kunti yu majorité bi ñi ngi ci saxraa bi entre Mali Tumbuktu, Mauritanie Maroc Tunisie et Libye Kunta dafa tas ci àdduna ba Tchétchénie mooy benn famille la koo ci gis rek da ngeen di daal di retrouver wu parce que yéen a bokk benn maam comme sunna soosu la nag te sallallahu alayhi wa sallam ni man sunna sannatan xasana fa lahu ajru ajrun amila biha mu doon sunna doon aada boo xamante si ni aada bu rafet la bu lislaam nangu ba tax na radiallahu taala anhu cheikh na cheikh bu Kunta en 1883 bi mu sancee Njaasaan la taxawal gàmmu gi bisub gane àdduna bi muy saani isnayni fi rabi al awal lay commencé di gàmmu di di ñuy jàng alxuraan di zikkar ci pénc mi ba ca ngénte la ñu mel ni kuy ngénte bernde def maam euh, euh, def ay teraanga taalibe yi mbokk jullit yi dëkkandoo yi ñi xiifoon ñi maroon ñëpp ñi rafle woon ñëpp mu woddu leen sa euh, euh, jox leen ñu lekk jox leen ñu naan euh, defaat ay zikkar guddi gi ñu fanaane koo naafile fanaane ko jàng alxuraan ci anam woo xamante si ni anam wu yéeme la woon ba suñ jonn yàlla tey nag loolu mooy li nga xamante si nii la ñu donn di ko di ko di ko di ko dundal di ko taxawu yàlla itam di ko nangu ndax jëf ju yàlla nanguwut du def téeméeri at te Cheikh bu Mouhamed Kounta 1900 2014 la def 100 ans ci bir souf kon euh jëf ju yàlla nangu moy lu yàlla barkel kon gamu waxuma la ndiasante way kep ku koy def faw yàlla barkel ko ndax tuddu gi nga si tudd rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ndax rasulullah sallallahu alayhi wasallam moy yamut ak len ci sunu borom bi nuru wut ak len tollu wut ak len mom la mom la yàlla tan moy habibuhu moy khiratuhu moy safiyatuhu jere jef serigne khalifa Kunta ci leral yu am solo ya xamne defal nga nu ko ci cosaanu gàmmu waaye cosaanu li nga xam ne mooy gàmmu Njaasaan ak taxawaay bi ak yitte ji nga xam ne jox ngeen ko ko kon sëriñ bi ñu fekkale tamit fi nga xam ne mooy ci liggéey bu am solo bi nga xam ne moom ngay def nii muy jàkka ji nga xam ne taxawal nga ko mu mel ni ren ji da nga am yéeney programme bi nga xam ne mooy programme gàmm gi nga gën koo mën a yaatal ndax gis nañ ne sa dal bi kat boo fi ñëwee di nga xam ne kat dal bi bokku na ci dal yi nga xamne kat li nga nan ta'zimuhu bi sunnati mom lañ fi dundu ndax di nga gis mbokki julit yi mbokki taalibe yi ak sey say and ndok yow di dundu li nga xamne moy sunna soosu di magal juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ana ban programme ak ban yene ren ji nga am yene kat dundale ko li nga xamne moy gamu ndiasan Njaasaan rabbil alamin ndax euh ñaan gu nangu ak lu yàlla barkeel ndax ku ne xam na ni wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahad jàkka yalla ko mom te jàkka kenn munu ci wote leneen lu sunu borom bi subhanahu wa taala waye nak wa shaqqa lahu min ismihi kay yujilluhu wa zul arshi mahmud wa hadha muhammad fone allah rek de ngani muhammad la ilaha illa allah jo gis sayidina muhammad moo siy topp sallallahu alayhi wa sallam le fërës dakh waxone ki nga xamante si ni moo doon ŋàññ Abidin mu ni ko walaysa qawluka man haza bi daa'irihi al arabu taarifu man karta wal ajamu waaye wax ja dema dem ba mu ni ko bi jiddihi anbiya allahi xat xatamu daal di dema dema dema dem ba ni ko doy na leen ci tiitar man lam yusalli alayhi fala salata lahu ku julliwul ci yenante bi rek amoo julli waaw kon ku nekk si jàkka sa xel dana dem ci yàlla waye sa xel dana dem ci sallallahu alayhi wasallam ta comme koku mo waral bis bi motax ñu sant yàlla bu baax bi ñu yàlla defale tawfiq ci tawfiqam du ngóor nak ndax gor ku ngóor amut ku ñu dimbali rek am ndimbalal sunu borom in tansurullahi yansurkum wa yuthabbit aqdamakum nasrun min allahi wa fathun qarib ba taxna ñuy ñaan ren nañ ko doon defé xëy suba wàcce kamil ci digg kër gi alhamdullahi rabbil alamin buñu wacce kamil ba pare jàng khatmu bi Euh, euh, lépp ñu soppi ko def ko ci biir jumaa ji bu ñu xëyee jàng kaamil ci biir jumaa ji jàng fi xatmu julli tisbaar génn euh, def yi fi doomu aadama muy wàllu xéewal ak yooyu ba tàkkusaan ñu duggaat ci biir jàkka ji joxewaat waxtu ba pare defaat joxewaat ay dog génn ziyaaranteeg mbokki jullit yi mbokki taalibe yi wëllëre yi ba timis ñu duggaat ci jàkka ji julliwaat timis defaat ay nawaafil génnaat defaat yëfi doomu aadama ba heure gee ñu duggaat ci jàkka ji julli gee bu ñu jullee gee ba pare nag dallu tuuti defaat eh, yëfi ay dara ay dara yi muy wàllu xéewal xewlu bu ñu paree nag duggaat ci jàkka ji fanaan fi ku mën a tudd yàlla nga tudd yàlla ku mën a def salaatu ala nabi nga def ko ku mën a naafila nga def naafila ku mën a istixfaar nga def istixfaar buñu mëne ku mëna déglu waxtaan ci sallallahu alayhi wa sallam nga déglu ndax problème aduna yëpp surtout Sénégal ndax dañ nan bala ngay laax jaay na nga laax lek ñun bala ñuy régler problème Russie ak Ukraine nañu ñëk régler problème Sénégal gi te problème Sénégal gi moy crise de valeur yi fi nek te crise de valeur yoyu moy azimatul akhlaq yi fi ne sallallahu alayhi wa sallam rek ko mëna régler te ci guddi yu melni ci nga mëna profito le wax nit ñi li nga xamante si ni mooy doxalinam ak li nga xamante si ni moo taxoon sunu borom bi subhaanahu wa taala tànn ko mu gën ak laat bi muy gënee ba pare lan la firndeel ni moo gën ndax yàlla neewul moo gën rek mu toog ni moo gën waaye dafa joxe preuve ni moom moo gën ñëpp ci jikko yëpp nag ci taxawal lépp nag ci ci ci lépp loo xamante si ni tey nasaraan bi mi ngi ñu koy jaay rek sallallahu alayhi wa sallam wan nañu yoon bi ñun ñoo jàngut wala boog ñun ñoo bëggut a déglu ay nag boo leen wooyee ba ñu ñëw da nga leen wax essentiel ba ndax euh, ki dem ci làmb jëm mbërëm moo ko yóbbu waaw ki dem ca palaasu caaxaanukaay ya woykat ba fa nekk rek a ko yóbbu kon la muy woy lay déglu ci waaye ku ñëw ci gàmm yaakaar naa ni déglu si sallallahu alayhi wa sallam mu la indi kon yàlla na fekk woo ñi nga xamante si ni ñoom la ñuy fekk si ñooy njaatigéye yàlla nañu am iftitaaxul fikriya ba mën leen wax loo xam ne lu leen di jëriñ la ndax nee woon na ballighu ni walaw bi aaya kon euh, loolu mooy programme bi bu ñu toogee ba euh, salaatu xayrum ne naw ñu waajal julli fajar julli suba euh, jàng ñaan gi ñaanal ñëpp ñaan ñëpp ñaanal ñu kuy xaar ndékki xaar ndékki kuy yeeweeku yeeweeku ñu daal di ñaanaat sunu borom bi ba déwénati incha allah lii daal mooy li nga xam ni mbokki taalibe yi mbokki jullit yi wëllëre yi ñi nga xamante si ñoom ñëpp ñoo jàppoon ci liggéey bi euh, lii lañ doon xaar ndax ñu mën a am bis boo xam ni dinañ ci mën a toog mën a waxtaan ci loo xam ni moom mooy sunu diine te waxtaan sunu diine mi ngi commencé ci waxtaan lan mooy melokaanu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. jërëjëf sëriñ xalifa Kunta jërëjëf sëriñ xalifa Kunta ci leeral yu am solo yi nga xam ne. ak programme bu am solo bi nga xam ne moom la ñuy waajal ci gàmm gi muy gàmmu Ndiassane 2022 kon mbokk yi nga xam ne yéenay bàyyi xel cees Média ki na dalaloon tey mooy sunu sëriñ di sëriñ Khalifa Kunta comme ni nga ko waxee rek kon ñun ñëpp ñu àndandoo waajal li nga xam ne mooy gàmm gi ak programme bu am solo bi nga xam ne moom la Niger ngir fas yéene ko amal fi nga xam ne mooy ci jàkka ji comme ni mu ko waxee noonu rek su ko defee képp koo xam ne rek am nga yéene agsi daanaka boo ñëwee ba ci résidence bu xalifa bi ci penku bi rek di nga gis li nga xam ne mooy jumaa ji di nga gis tamit fi nga xam ne mooy kër gi nga xam ne ci la xalifa fas yéene ànd ak mbokk jullit yi laayante biir ci li nga xam ne mooy gàmm gi laayante biir ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak programme bu riche bi nga xam ne moo fas yéene am ci jàngum alxuraan ak salaatu yi ak naafile yeeg yëpp kon sëriñ bi ginnaaw loolu dañuy ñëw ci fi la fekk ba léegi muy liggéeyal yàlla bi nga xam ne yaa ngi koy def muy jàkka ji ak daara ji ñu gis ni kan lepp day gennul liggéeyul islam ana ban euh, leeral rek nga nu mëna indil ci fin la fekk muy jàkka ji ak daara ji daara ji na la tëdde euh, daara ji mom fay bor la rek ndax euh, ku judd ci daara yaru ci daara daan yor sa pot di nan laara biraanaan so magge te yalla mën lolako ko yaakaar naa ne sa yitte yëpp mooy daara ñun ay doomi daara lañ amuñu lu gën daara amuñu lu gën a kawe daara amuñu lu ñu gën a yitteel daara ndax ci daara lañ toqanti ci lañ màggee te itam daara rek lañ fekk baax te njaasaan gii itam du dëkk daara la ndax njaasaan ardun xawat fi tayiha adamun fa taaba bi tibihinna alqaacu wal akamu biha almajdu cheikhul qawmi cheikh bu mohammed kunta alarabu taarifu man qulta wal ajamu bi dacwatin fi suduli leylin fajarat بها عيون الماء تصافى منه بادي والمستقيم فاكرم بقوم رسول الله شيعتهم إذ تشيعت الأجناس والأكم كن أمون لنين لو جن لو أب لو لو نيو جن يتيل دارا نخ آه، تي أدونا لنيك نك لا تنسى نصيبك من الدنيا آه، دون كو فاتي موك واحسن كما أحسن الله إليك واي واحسن كما أحسن الله إليك جوجو نيون نيو كو جابي نيون أهل الكنتي موي أي نيتو دارا لنيو kon amuñu leneen benen yitte amuñu fenen yitte luddul fexé taxawal daara ji ndax da'watul yaatal l'islam bi moñu indi Afrique ndax dugal islam Afrique yombul won te Uqbat ibn nafi al Fihri bim ko fi dugal 50 hijriya islam bi rek ka taxone mu reppetal ay fasam ba ci suufu xayrawaan cheikh bu mohammed Kunta ganewul aduna fi fii bayam ganewul aduna Sénégal cheikh bu naama ñoom ñëpp daawatul islaam ak intisharul islam moom moo leen yitteeloon moo tax njaasaan sosu kon ñun daara moo ñu sos kon lii ñuy def nii yëpp fay bor la rek te matalaguñu nag. jërëjëf sëriñ Khalifa Kounta ci kàddu yu am solo ya xam ne moom la ñu euh, waaj a tëjalee jotaay bi muy diggante daara ji ak jumaa ji comme ni nga ko waxee rek maam Ndiassane day dëkku daara njaasaan day daara kon mbokk yi xam ne kat yéenay bàyyi xel cees Média lii mooy liñ leen indiloon ci li nga xam ne mooy waajtaayu gàmmu Ndiassane. ñu àndoon ko kenn ci sunuy kilifa di sëriñ xalifa kunta kon sëriñ xalifa ana yan kàddu mooy yi nga xam ne moom la ñuy tàggoo tàggoo bu dul tàggoo jox ñëpp dig daje rek ci bisu gàmmu gi ana yan kàddu mooy ci tàggoo xanaa di wax ni rek nit ki euh, temps dafa cher cher lool bàyyi sa yitte bàyyi sa kër bàyyi sa njaboot bàyyi lépp dox ay kilomètres ngir euh, benn hëdëf muy gàmmu ji kon war naa am retour bu wara ñew ci yow retour bobu nak na nga fexé ba bo ñewé kuy ñew bu mu ko perdre ndax bokku na ci perdre euh, euh, perte nga mom may nga ñak ben bis te amo ci ben njëriñ bo xam ne ni mën na ci bis bobu kon ñi ñaan képp kuy ñew rek da nga xam ne yittee gàmm la indi euh, te kuy ñew yitté gam nak war nga defar sa comportement war nga defar sa jëm war nga defar sa sa melokan ba bo ñewé ci suuf su tedd si dëkk bu sell bi bis bu sell bi nga def tout l'effort pour màng ci yiw yi nga xamante si ni moo fi rote di leeru sallallahu alayhi wa sallam ndax waykat ba nee na taasil ilaha wa tazharu xubba haza la amri fi lqiyaasi badiu law kaana xubbuka sadiqan la ataatahu inna almuhiba liman yuhibu mutia di feeñal ni bëgg naa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te doxoo dara ci lu ko neex lii man xaw ko ndax nit dëgg dëgg dëgg ki nga bëgg lu mu gàtt-gàtt war nga koo roy wala war ngaa suivre ay paam kon ñu ngi ñaan képp kuy ñëw rek nga xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam moo woote rasulullah sallallahu alayhi ngay fekki ay leeram ngay dem di tibb ji te nag eh, eh, eh, yàlla du jël ay leeram leeru yenent bi nga xam ne moom la gën a bëgg di ko def ci ndab lu tilim kon nañ fexe ba raxas ndab liñ fiy indi pour mën a duy yóbbu mën koo jëriñoo wasalaamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ xalifa Kunta ci kàddu yi am solo yi xam ne moom nga tëjee jotaay bi kon mbokk ya xam ne yéen doon bàyyi xel Thiès Média lii mooy li leen jëlale woon fii ci Ndiassane ci waajtaayu gàmmu Ndiassane 2022 ñu àndoon ak mbooleem équipe bu cees Média bi yëpp waaye àndoon ak sëriñ Jibi Taabaan ci wàllu caméra bi sëriñ Abdou Fatah Thiam ci wàllu montage bi ki leen ko doon jot li di seen mbokkum taalibe Abdou Karim Mbacke Sow di leen jox di daje ci bis bi nga xam ne mooy bisu gàmmu Njaasaan gi fii ci kër sëriñ xalifa Kunta ci mboolem programme bi nga xam ne moo fas yéene am yëpp incha allah ak Thiès Media dara du leen ci ump kon ñu ngi jéggul ñëpp tey jéggal ñëpp wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بسر لا إله إلا الله